vingt secondes laa ko may. Hmm. su ñëwul yenn vingt secondes fi laa ko fekk daan ko. daa fi di song ma. tamit kii moo song dootu ko doole di. kii li wax nii. da koo man li ma ba léegi teguma sama tànk. sama gëm-gëm la. maa mën fuuf. moom xam na ko sax fa ma duma ko ndax mu yaru barke sëñ Tuubaa ñeme moo gën a tàpp ci mbëri la quatorze août laa la wax dinaa la duma daan boobu jàppee ray ma te li ma la gëmoo ko la yow xam naa la du la bëreeg yow yem si dinaa la duma doog lay daan na lijjanti ma daane mu lay neex mu lay naqati fi sa bala naa la duma salaamaaleykum rëpp rappel rëpp waaw Lamine maa ngi lay fay ginnaaw bu ñu sant yàlla jëli seen bi sant suñu ñaari waajur bu baax di sant sama papa bu baax ak sama yaay di sant sama sëriñ sëriñ Moussa Nawel di sant njabootu sëriñ Moussa Nawel gépp waaw di sant tamit suñu waa école waa école Balla Gaye ku si mel suñu coach Lamine Golo maa ngi koy sant bu baax mbës Balla Gaye 2 di ko ñaanal yàlla may ko ndam di coach di sant tamit sama coach bi tamit Iba maa ngi koy sant bu baax ah bégee tamit sama gaay yi may àndal yëpp sama xarit yi ah. ban waaw avant tout dañuy rafetlu drapeau bi ah dañuy sant Serigne Cissé waaw di ko sant bu baax di ko wax tamit li mu def rafet na quoi waaw kontaan naa kontaan nañ ci drapeau bi di ko wax tamit mu jàpp ci tamit ci làmb ji ndax làmb ji dafa yàgg waaw sant di ko ñaan tamit mu jàpp si jënd si ay billets tamit muy man muy góor soog waaw. Mhm. Mhm. pare nañ pare nañ. gisoo ma ko nee naa comme ni ma ko gisee laa ko gisee ba léegi. Mhm. moom laa ko gisee ba léegi. dara changé wul si loolu noonu laa ko gisee ba léegi loolu ñoom la concerné ñoom loolu ñoom la concerné ñoom na ko ñëpp jàppale waa parcelle yëpp jàppale ñëpp mbër yëpp nañu ko jàppale teewul maax moom mooy dugg si biir géew bi ñoom ñëpp kenn du dugg maax moom ñooy dugg si biir géew bi mhm. day song rëbb loolu laa ko bon kon si moom loolu laa gën a bëgg sax dama song dama songee dootu ko doolee te de lamin Mm, balaa moo ñëw sax maa njëkk ñoom man maa soxla maay xale moom na taxaw rek laa koy sant. Mm-hmm. maa gën a féete xale. Gor Sock bu muy bëre maa ngi jàng maa gën a féete xale. waaw waaw mais bu jour waa dina rëpp bu jour waa dina rëpp ta tànk tànk tànk yi du tànk yu ñu song de Lamine tànk yi du tànk yu ñu de. Roso maa ëpp bu ma ko jàppee ne woon ne maa ëpp doole ma ko daanee pare nga xam ne maa ko ëpp ah, waaw mais garaawul buñ sumee ko lamit buñ sumee ko di doole buñ sumee ko mais garaawul moom na xam doole man xawma doole man xawma dara lamin man daan laa xam daan man daan laa xam lamin daan awma doole xawma dara yàlla rek am doole lamin Lamine yàlla rek am doole ñu ngi ñaan ci yàlla yàlla may ñu ndam waaw baax na amul problème awma dara awma doole awma dara Lamine yàlla rek am doole Lamine waaw waaw garaawul baal naa ko na wax lu ko neex na wax lu ko neex si <laughs> xam nga day fayu xam ma ko waxoon bee passé loolu bëgg ratifier pour bëgg a mais luy wax ñi lijjantiwuñu ko sax ay ndëkkate yëpp amul teguwul amul buñ sumee ko lamin buñ sumee ko ba daw dongali te xam ko ëpp doole tey lamin ci làmb ji buñ sumee ko laax lamin loolu problème na wax lu ko saf mais teewul buñ sumee ko laa la ba daw dongali dina xam ne tey am naa bis moom barki sëñ Tuubaa bu ma dawee ba dongali dina xam ne tey am na bis moom hmm. mu ne Lamine kii bu dee bëre maa ko daa bëre mu ne non lii du si tontu waaye Lamine lii du ma si tontu non du ma si tontu waaw garaawul loolu yëpp na wax sax ay pata lañ ay lu ne na ko wax nañu traité mën lu ne nañu ko wax boo ko neex mu a ñu wax mu ne mais teewul lu waay waxoon ci bu jour jour bi jour bi na ci waxat mu ne bu mu ci dugal waa Pikine maax moom ñuy bëri Lamine bu mu ci dugal waa Pikine Ama Baldé sama xarit la daf maa ñaanal am na droit ñaanal ma mais bu mu ci dugal waa Pikine maax moom ñooy bëri moom loolu laa bëgg mu xam maax moom góor soog max yow ñooy bëre bu ci dugal waa pikin max yow ñooy dugg ci biir géew xamal loolu voilà su ma ko daanee ama lu mu koy doyee ba ñu gëm ba ah Lamine nañu waxante nag waaye kii su ko daanee pare ama lu koy doy di kii du egg fi mu jëm Lamine kii du yegg fu mu jëm. Lamine am na doole na 14 na ko wane c'est waa léegi bu jour ba la mi na ko wane. na wane loolu moom mën la. la na wane na moom mbër la moo gën wax ju bëri jar ko wax ju bëri jar ko de la 14 moom na wane na mbër la rek. max moom mooy mujj si géew bi de ñëpp ñu ko jàppale ñëpp kenn du dugg barki sëñ Touba ñëpp lu muy wax nii yëpp Lamine ay wax la rek. li muy wax nii yëpp góor soog li ngay wax nii yëpp nangul naa la ko wax loola la saf mais teewul boo arbitre bi sifflé max yore ko des si géew ba kenn du dugg. ñi la doon jàppale ñi la doon dimbali kontaan ñu ñëpp kenn du dugg man kenn du dugg man maay xuus ñëw si yow voilà te soxla moo benn dimbali si biir géew bi kenn du ci dugg déggu mu wax làmb ji xoolal boo bëggee dégg Lamine soxla ma si sax conseil conseil sax soxla ma ko man xam naa li may bëre góor soog bu ma kenn conseil ci làmb ji. ñuy doxee làqu xam nga bale Ama Baldé ñu fekkente diine di entraîné mais du daw laaxu kii lu muy wax nii la xam la war a baax bu mu ci dugal ay waa Pikine ay xaritoo yi bu mu ci dugal maax moom ñooy bëre voilà loolu bëgg mu xam ko moom bu yee Lamine man nag ma fay dégg moo benn mbër man mbër gi yàllaay war a chaque jour de ba ma jëlee jël ba léegi mosuma dégg ma woo Maru waa Pikine Ama Baldé moo am lu rafetam xolam rafet mu toog ñaanal ma waxuma ko forcé wu ma ko moom moo toog ñaanal ma kon mu fu nekkoo di ko balaa mel ko tax nga may te lu muy ñaan dama see fier te yàlla naa ko daan incha allah man waa géej waay doy nañ ma man Lamine waa géej waay doy nañ ma waaw garaawul amul benn problème waa Mbawar Mbour nañ ko jàppale dawalkati camion yëpp nañ ko jàppale waa Cambérène yëpp nañ ko jàppale waa Parcelles yëpp nañ ko jàppale mais teewul luñ ko jàppale jàppale Lamine mooy li may wax rek maax moom mooy dugg ci biir géew ba te biir géew ba fit moo koy mottali fit fit moo koy mottali ak njàmbaar wax yomb na Lamine mais jëf moo jafe jëf wax yomb na ñu dëkk la micro ngay wax ni yomb na mais bu desee wàllu géebu arbitre dufle arbitre fa ñu fa la ñu xamee kuy bandi arbitre arbitre xamante nañ xam nañ ak mbëri xamante nañ bu baax waaw na ñëw na ñëw songu la 14 maa koy ñaan mu ñëw songu ma na fa jaar Gora Sock la 14 ñëw songu ma Gora man bañoo fenn aw ma fenn fu bañ ci laam léegi noo fa lay bañ ah na ma song loolu laa bëgg na ma song waaw hmm. ah, na ma waaw ah, na ma song waaw ah, garaawul man kay bi ma neexee li may bëri man téye ko loolu lu problème man fépp laa ko def sama yaram lañ li may bëri moom sama yaram déggu ma la làmb ji boo bëggee dégg soxla ma ci conseil soxla ma ci dara moom sax kenn conseil man xam naa li may bëree góor soog voilà góor soog méttiwul. billaay méttiwul. ay mbiram méttiwul de gars yi ko a métti léegi mais moom méttiwul. lan bañ. waaw garaaw. nag maa xam. léegi bu bu jaa nga weer ma léegi. bañ weeru na ma weer. góor soog la 14 nga weer ma man su ma la mënee weer weer la loolu la rek na ma mën a na ma weer ut ay képp weer ma. loolu mu ne dafa mbaar daan sama kaw waaw baax na ba jour ba góor góor soog du xeex ka lam bu dugg si yoo xeex sax góor man may góor may njool mu ñoom moom koy nee naa bu bëggee na taxaw ñu xeex balaa ñoo bëri moom bu bëggee mu xeex ñu xeex ba pare doo ko bëri ci moom lay dépendre rek góor soog Lamine lu mu bëgg rek am na ko fi lu mu bëgg rek fekk na ko fi lu mu bëgg am na fi tey laa ko gën a yëpp tey laa ko gën a ñeme Lamine góor tey laa la gën a tey laa gën a ñeme nga naan ma nii ak naa góor tey laa la gën a ñeme tey laa la gën a yëpp tey laa ko gën a yëbaat tey non làmb la suñu diggante maa moom jàmm du ci am waaw garaaw na ma koppatal na laaj na ko doon wax na laaj mbir yu doon wax waaw na ko waaw baax na moom ma ko koy léegi moom na ma ne man damaa yomb bëre balaa ma xam ne moo yomb mu daan ma si jël bu gaaw boobaa laay nangu ne man damaa yomb bëre mais tant que daanagu ma mënu ma nangu ne fa dama yomb bëre loolu la rek c'est simple ah. waaw na ma corrigé góor soog corrigé yar ma man maa la ko wax maa la jox ndigal boobu góor soog yar ma bu làmb jaa yar ma damaa bëgg a yaru ko nga ne damaa wër na fu ne yàq sama der wër na fu ne wër na fa wallu yàq sama der nee na damaa léegi garaawul moo koy faj waaw garaawul na ko faj bu jour ba góor bu jour ba làmb jaar lépp képp mu a tooñ ci làmb yow da nga ko fajal loolu rek laa lay ñaan <laughs> bii daa neex heure yàlla kii comédien la barki yàlla comédien la heure yàlla góor soog billaay day comédie bu pare fa mu dem jouer ci théâtre hmm. billaay ay ree ma dama xam ne comédien la rek waaw Mourou daw na daa daw dem États-Unis daw na ndax xaw wóolul ku mu yor bu ko wóolul xam naa def comme lay def ñëw indi ko ci làmb ci ñoom xam nañ waa xam nañ sax amuñu sama waa ji confiance moo tax daw xam na xam na ne bu ñëwee gaynde gi day ñëw gaynde gu mag gi ah xam nga ñoom mënuñoo bokk benn mbalka ñoom ñaar ñaari kuy mënuñoo bokk benn mbalka moo tax mu daw kan seen xew du géej waay lañ ko boole seen xew yëpp du fii de seen xew yëpp feneen lañ ko mais du géej waay ñoom loolu métti ñu ñoo lañ ko teg waaw maa ji moo tax mu daw dem états xam làmb jee tax mu daw na xam na xam na ki mu yor ñoom wóoluñu ki ñu ko de wax jee fi ne rek de Lamine parcelle am fa may xarit Cambérène fi mu dëkk na fa may xarit. Eh, Faran na ko jàppale Papa Sow na ko jàppale Garga 2 na ko jàppale ñëpp Dame seen ñëpp nañ ko jàppale mais Lamine li ma la rek ñoom ñëpp duñ dugg ci géew ba. seen xam-xam mais waa du ko utiliser du ko fa xaar waa du ko fa xaar xam-xam boobu du ko fa xaar waaw garaawul Lamine ku yëkkati Balla Gaye kuy xam-xam xam ju bëri. ngir Balla Gaye ku ñu xam-xam ñu si bëri. waaw yow yow foo fete foo fàtte roi des arènes Balla Gaye non fooy fàtte roi des arènes laax bi nekk géej waaye nga naan ay bëri Papa Sow doo ma bàyyi Papa la da daanu ko ah Balla Gaye daanu ko kon quel est problème bu ñu ay Papa Sow kan daanu fa garga waaw ba Balla Gaye daan na Modou Lo ñaar yoon waaw kan fu ko daanee bala ko daanee par avertissement waaye bàyyi ma nga naan daan loolu lay daan kan si waaye yow Lamine ñoom lu leen métti ñoo leen ko teg ñoom lu leen métti ñoo leen ko teg te la 14 ans lay gën a métti si ñoom suñu noos lañ ñu ngi waaj bu baax nag côté mobilisation bi ñu ngi ciy waaj bu baax a baax ndax gaa yi Boucher waaw pour l'instant jëndagum na ñaari bolok non wan xeeb Lat Diop laa wax Lat Diop maa bëgg mu jëndal ma 20 bolok Lat Diop maa ngi lay woo nga jàpp si làmb jëndal ma 20 bolok laa bëgg te daa am benn message mu bëgg a jàllale si Lat Diop maa bëgg mu jàppale Oumanga bu baax Oumanga ku ko bëgg la Oumanga Lat Diop Oumanga ku la bëgg la mu ngi sonn si yow lu ne mu ngi koy daj si yow maa bëgg nga jàppal loo ko gën a jàpp benn gën koo jàppaat ndax mu ngi daj ay coono yoo xam ne doo ko yëg mu ngi reyante ci mbedd bi ndax yow te xale yi moom lañ gëm moom lañ jox bopp loo ko mën a jàppale jàppale ko ko lépp loo ko mën a jàppale jàpp ko ndax mu ngi reyante ci lu loo xam ne doo ko yëg. ko raw. Lamine Jokkel waaw Lamine ñu ngi siy woo bu baax sama papa tamit pa mama maa ngi koy woo bu baax mu jàpp ci làmb jënd billet yi Papa Aziz Ndiaye maa ngi koy woo bu baax Masata maa ngi koy woo bu baax Baye Ndiaye maa lay woo ci làmb ji Masata maa ngi koy woo bu baax moom mu ngi ci sax maa ngi koy woo bu baax soora Khalil badu sama père Omar Wade maa ngi koy woo bu baax a baax Cheikh saw borom marché Sam Cheikh Sow maa ngi lay woo di woo tamit sama pro yi jàpp si bu baax yeeyaa ak an Modou maa ngi lay woo ci làmb bu baax di woo tamit sama transitaire kii sama douanier yi ñoom Pierre ak Wilane Tafa yaa maa ngi koy woo ci làmb bu baax a baax di woo tamit sama mag yi waaw papi maa ngi koy woo bu baax a baax Aliou Ndiaye maa ngi leen woo ci làmb bu baax di woo tamit Mouma Ndiaye Mouma Ndiaye maa ngi koy ci làmb bu baax a baax a baax nga jàpp di woo tamit waa amoo 456 waa moo 456 maa ngi koy woo bu baax suñ président ASC maa ngi lay woo bu baax Cheikh Cheikh Dia Cheikh Dia maa ngi lay woo bu baax ma fi yàlla bawol bi station ba amoo siis AKD ñëpp bàyyiwuma kenn maa ngi woo ñëpp ñu may jàppale di woo Youssou maa ngi bu baax a baax ci làmb ji maa ngi koy woo bu baax waa Alkayda yi sama booy foofu waa Daaru Minam dol ko sareet yi ma fi yaa dol ko sareet yi ñëpp ñëpp ñëpp di woo tamit ASC yu nekk amoo ASC yu nekk zone Guédiawaye yëpp su ma limee rek damay juum maa leen woo ñoom ñëpp ASC yëpp maa ngi leen woo dañu làmb ji nañ soo soxla mobilisation bu am doole maa ngi leen woo bu baax di woo di sant tamit Lamine waa campénal gars yi nekk si jeel bi maa ngi leen di sant bu baax dama fa am benn grand boo xam dafa nekk biraa sama gars yi nekk foofu Bira si soxo maa koy ñaanal yàlla tegal ko nattu yi ay Fallou Boroxo Joo ñoom Pagala baay Baye ñëpp mafia bi di woo tamit xaalim Diagne xaalim jaañ maa ngi koy bu baax gauche droite sama xarit sama doomu ndey sama lépp gauche droite maa ngi lay woo ci làmb ji nga jàpp ci bu baax dugal ci sa loxo gauche droite maa ngi koy woo bu baax waaw kooku sama xarit la sama lépp la gauche droite maa ngi koy woo ci làmb ji mu dugal ci loxoom bu baax di sant sama gaa yëpp ñu may àndal ku si mel ni Gànna moo di Gora Pata yan bu diis Umanga Ndaama Abdou Sefa waaw moom siis sama gaay yëpp di sant tamit sama soxna maa ngi koy sant bu baax ak yaayam tamit ak suñu waa kër bu baax a baax di sant ñëpp waaw di woo ñëpp ci làmb ji ah bàyyiwuñu kenn ku ñu limul juuma ah. di woo tamit Landing Landing maa ngi koy woo bu baax di ñaanal tamit Balla Gaye 2 yàlla may ko di ko ñaanal yàlla may am contre Gris waaw di woo ñëpp bàyyiwuñu kenn ah. di woo tamit Bill Bill maa lay woo Bill Bill Diakhou Billy Boy père père Mbaye Diouf ja maa ngi lay woo ak taan Adja sama yaay maa ngi lay woo bu baax a baax ngeen jàpp ci làmb ji bu baax waaw Moussa Bokar Thiam war a soogi maire war a soogi maa ngi koy woo bu baax a baax mu dugalaat ci làmb ci loxo ji dugg dugal ci loxoom waaw di ko ñaanal élection yi foofu mu gañe ko tamit élection yi am foofu di ko ñaanal yàlla mu gañe ko waaw di woo ñëpp di sant ñëpp ah bàyyiwuma kenn waaw di woo tamit Racine Talla maa ngi koy woo autorité gi Aliou Sall maa woo bu baax a baax Ahmed Aïdara maa ngi woo bu baax a baax ñoom ñëpp autorité Guédiawaye képp kuy autorité Guédiawaye maa ngi lay woo bu baax a baax ci làmb ji ñoom ñëpp ñu jàpp si Racine Talla Alioune Sall Ahmed Aydara Lat Diop ñëpp wuma kenn ah tamit encore tamit di waat Lat Diop làmb ji sa làmb di sant tamit sama coach bi tamit Iba sonn na si trop chaque jour ñu ànd dem entraînement di sant ñëpp waaw Hmm. su ñëwul yenn vingt fi laa fekk daan ko. fi di songu ma. dama ci ma songa dootu ko doole di. kii li muy wax nii. Ah. da koo gëmul. man li ma ko wax ba léegi teguma sama tànk. sama gëm-gëm la. maa ko fuuf. moom xam na ko sax fa ma duma ko ndax mu yaru barke sëñ Tuubaa ñeme moo gën a tàpp ci mbër yi la 14 août laa la wax dinaa la duma daan boo ma jàppee ray ma te li ma la gëmoo ko nag yow xam naa la du la bëre ak yam si dinaa la duma doog lay daan bon mbër gëm surtout maa la man man ki la man man ku dul yow à partir suñu moom na lijjanti nu ma daane moom dama lay daan mu lay neex mu lay naqari Fils de Balla naa la duma